asalaamaaleykum mbokk yi tey la gaawu juróom-ñaari fan ci weeru koor ci atum junni ak ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak ñett ci gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dëppook juróom-ñeenti fan ci weeru avril ci atum ñaari junni ak ñaar fukk ak ñaar juróom-ñaari fan bokkul ci lim yu fàtt yi lim bu rafet la kon tey ci gaawu bi rafet na li ñu ci gën a taamu mooy ku ca watu li ñu ciy teetere ak watandiku mooy ku ca sangu wala ku ca fóot ñaanuk bis bi yow yàlla yàlla na nga ma jéggal samay bàkkaar yàlla na nga ma yërëm yàlla na nga ma jubal yàlla na nga ma jàmmal yàlla na nga ma wërsëgal allahuma axfir lii warxam nii wahdini wa aafi nii warzuqni xadiisu bis bi yonente bi salallahu alayhi wa sallama nee na bëriwaa na aji wor joo xam ne jëlewul dara ca koor ga lu dul ab xiif bëriwaa na aj taxaw guddi di naafila joo xam ne jëlewul dara ca taxawaayam ba lu dul ñàkk nelaw xadis bi ibnu maaja moo ko nettali qaala rasulullahi salallahu alayhi wa sallam ruba saimin laysa lahu wa rubba qaa'imin laysa lahu min qiyaamihi ila soor rawaahu ibnu maaja waxtu julli yi suba waxtoom la tàbbi juróomi waxtu wu tegal fukki simili ak ñett tisbaar benn waxtu wu tegal fanweeri simili ak juróom yu toftal fanweeri saa tàkkusaan ñeenti waxtu wu tegal fanweeri simili ak juróom yu toftal fanweeri saa timis juróom-ñaari waxtu wu tegal ñaar fukki simili ak ñaar gee juróom-ñetti waxtu wu tegal fanweeri simili ak ñett loolu mooy waxtu julli yi ci Tuuba ak li ko wër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 yàlla nanu yàlla nangul te nangul leen amin